ci euh, trois cent pages yi nga xam ne def nañ ko ci coalition jubanti euh, ci plateforme jubanti mhm. euh, soixante quinze pour cent ñi nga xamante ne dugg nañ ci biir ñi ngi ñu laaj ñoom nee nañu coalition bi justice bi mhm. dalul seen xel soixante quinze pour cent maanaam téeméer yoo jël Euh, juróom ñaar fukk yi ak juróom mhm. gis nañu ne justice bi wóoluwuñu seen justice mhm. kon dañu gis ne dafa am benn euh, waroo bu am mhm. ci diggante euh, citoyen yi ak justice bi ñu ni kon loolu am na lu bari lu ko waral li ko waral moo di dañu jàpp ne léeg-léeg justice bi politique daf ci rax politique daf ci rax ba nga xamante ne euh, magistrat yi ñu seen bopp ni ñu waroon moomee seen bopp ndax gis nañ ni itamit procureur de la république dafay am ay sañ-sañ yu jéggi dayo mhm. te sañ-sañ yu jéggi dayo yooyu dafay tax euh, comme euh, moom ministre de la justice garde des sceaux mooy kilifaam mhm. te président de la république mooy kilifa garde des sceaux ministre de la justice yu ci bëri day am Euh, ay politique du ci rax parce que bu faites qu'un yenn infraction a ñu infraction yenn vise yi nga xamante ne bu ñu jàppee ne tuumaal nañ nit ne moo def mhm. euh, bu procureur la ne dañ koy denc euh, def ko sous mandat de place ko sous mandat de dépôt juge d'instruction bi nga mom il instruit à charge et à décharge mhm. maanaam day le plus loo xamante ne dafay dugal nit ki wante dafay xool itamit li nga xamante ne daf koy setal mhm. kooku dañu dal di téye ay loxoom ne ko lu la procureur bu la procureur laajee ne nga téye nit ki da nga ko war a téye. Mhm. léegi nag loolu dafay andi jeexi jaaxa ndax procureur xam nañ ne moom euh, moom mooy seen kilifa te mhm. moom euh, président mooy kilifaam donc mhm. loolu politique daf ci yomb dugg ba nga xamante ne dafay salfaañi àq ak yelleefu doomu aadama yi te gis nañ ko ci anam yi mu gën a ñaawee. Euh, ci li nga xam ne moom la ñu jot dundu Sénégal mhm. euh, ci ñetti at yi weesu kon ñu ni loolu war nañu xoolaat boo sañ-sañu procureur ñu dal di koy tënk mhm. ba nga xam ne dinañu gën a sàmmonte ak ak ak yelleefu doomu aadama yi mhm. beneen bi ñu ni

Euh, politique ci biir conseil supérieur de la magistrature <laughs> dinañu gën a leeral gën a fësal li nga xamante ne mooy tànn bi ñu tànn magistrat yi mm-hmm. euh, bañ ko def rek tànnu yaama neex wala bañ ko def tànnin boo xamante ne da ngay jël koo xam ne boo ko tànnee loo ko sant mu defal la ko ñu tànn euh, ci kaw

Euh, euh, jëm euh, ci tànn magistrat yi fay jëm ci ci ay poste de responsabilité jëm ci affectation ak lepp wante itam dañu def ay appel à candidature manam bu dafa am ay poste yo xamné ñi nga am nañ jaar-jaar bi am nañ xam-xam bi am nañ bi présenter ce dossier beaucoup conseil supérieur de la magistrature dal tànn ñi nga xamante ne ñoo ci gën a xarañ donc loolu lu am solo la mm-hmm. euh, ci biir justice bi wante it wax nga ko am na beneen fànn boo xam ne fànn euh, mun nañ wax dana fexe ba justice bi euh, nuroo que askan wi. askan wi gis Voilà ci justice est-ce que ko décoloniser comme on peut dire. voilà exactement le mot est sorti mu euh, euh, bat bi nga wax décolonisation maanaam lépp li nga de dañu euh, ci jamonoy yi la te andi da andi Hajalo, ci Diganti, justice bi ak citoyen yi mm-hmm. war nañu fexe bo dindi ba nga xamante ni citoyens yi dinañ gis seen bopp ci justice bi mhm. mën nañu xoolaat kàllaama yi nga xamante ne moom la ñu jëf kàllaama bi ñu jëfandikoo ci biir justice bi war nañ mën a am ay anam yoo xam ne ñi nga xam ne dégguñu nasaraan war nañu mën a xam justice bi lu mu tekki loolu yëpp waxtaan nañ ci li nga xam ne itamit mooy euh, sart yu bari yi nga xamante ne Sénégal am na ko mhm. moo xam sart boo xam ne ci wàllu tëj ak tijji la mhm. muy code pénal ak

Euh, euh, ñu mën ci euh, am tëj wala tijji ak procureur bëgg dal di ci intervenir mhm. lépp li nga xamante ne itam dafa jëm ci wàllu jënd ak jënd jënd jaay ak jënd maanaam les affaires commerciales mhm. loolu yëpp war nañ ko waxtaanee xoolaat sart yooyu càmbar ko saytu ko ba li nga xamante ne mooy jafe-jafe ñëpp ñi nga xam ne ñoo sekk Euh, mbir mi ku ci ne dal ci mën a gis sa bopp euh, boo dem ci ñi nga xam ne itamit euh, téye woon nañ leen yoon tegoon na ci ñoom loxo ñu di leen di jàpp ci anam yoo xam ne anam yu ñaaw la anam yoo xamante ne bàyyi ma sax duñ ko den duñ ko denc ci condition yooyu mu mel ni dañu delloowaat ci jamonoy njaam jàpp nit ñi def leen ci Euh, ci kaso yi ñu tàncaloo mhm. nekk ci ay conditions yoo xam ne dañu xotti seen war may doomu aadama loolu yëpp war nañ ko xoolaat ndax loolu du dëgg du yoon rawatina bu ñu nee dañu nekk ci état de droit maanaam réew mu tegu te tënku ci yoon yoon mun ko daan ci àtte mu nangu ko ba noppi di sàmmoonte ak ak ak yelleefu doomu aadama yi mhm. rawatina itamit bu fekkente ne dañu nekk ci réew moo xamante ne euh, ñi fi ëpp ci réew mi dañu nekk ñu gëm yàlla donc am na loo xam ne euh, rafetul muy am si réew mi jamonoy tubaab yi bañ ko daan def mhm. di jël euh, euh, nit ñu ñuul ñi di leen dugal ci bato yi ci condition yooyu ñoom dañu jàppoon ne nit ñu ñuul ñi amuñu roox amuñu am kon gis nga ñooñu ñi ngi doon fexe ba ja ñàkk jaadu bi liñ doon def ñàkk jaadu mhm. ñu fexe ba wutal ko lay ngir sen conscience manam sen xel du len sonal bu fekkente ne dañu tok mm-hmm. motax lolu euh, lu am solo la ñun nak legi euh, mom nañu suñu bop am nañu euh, indépendance nee nañu dañu gëm yalla nee nañu am nañu rew mo xam dafa dafa teggu ci yoon mm-hmm. ba noppi ñu jël ay nit comme ñun di leen def rafetul te du yoon te du dëgg wax nga ko léegi professeur li ñu gën a mën a seetlu ci assises yi nga